ñaan aram la kumba caam ngañ penda ak paate penda xar yàlla boppu joor sëriñ Babacar si nar nar baa ngi ay waaji waaw boo ko musay présenté sa àndandoo du ko fàtte bu la gisee di ko laajte xalifa moo amugo jagle la dëgër ki nga doyloo moo di sëriñ Babacar si bàyyi sëriñ man bàyyi sëriñ Mansour mi nu ngeeto gunu baayu seex di njaan si almaktub sa waajaagi xalifay lamp ngor loo bañ bañ mu tiim la tey leeral lii la yàlla def ku sopp sëriñ Babacar si ne li ñu màggal joojol waay ewaay yar joo yar joo Maodo ne yar joo minan laay aw nan xay ramotasim waay yar joo أيرجو من الله عونا خير منتظر كنانة قصيمة مدركة إلياس مامودر يا إسوبي محمد رسول الله سيمة بنياسم لبست ثياب المجد والفضل والأولى وفيك من الأخلاق ما جسد كلها tagg dem aljanna yaakaar dem aljanna sopp dem aljanna mooy muhammadu rasulullahi waaje jamat na waa aljanna koy abdul karim waa sawar naa abdul jabbar injil naa ko taaba taaba tawret nan ko faasa njaay ali abdul salaam waa aras naa abdul majid banni ayam di koy seyduna muhammad yaay soppe seyduna muhammad waaye danga bëgg sëriñ Babacar Si ba këreg dërë maam aram loog maam kumba caam am nga ndam wàcc nga bis bi bu pap si la àndee ñu war a àndal ñëpp kër bi xool seddati rek doom ndey ndeysaan xool seddati vraiment sëriñ Babacar Si billaahi gi ndeysaan la dëgër bu ma santee yàlla nee na kii. man xam naa ci lim ma génnee bu baax. nee na moom xam na ci lim ko génne bu baax Pape si nam napp. barke yonent bi. nee na barke yonent yàlla na yàlla yokk leeram. ndeysaan la xol ba set na. waaw xol ba set ah Pape Sylla da fayam de. nee na Pape Sylla amul fayam sa fay jëmm ji. def naa bu tegee fii loxoom. nee na nee ndeysaan. juumul mukk. nee na de Pape am nga ndam. xaw ma ku ko wax lii. nee na Pape Sylla daa xamul la wax lii sa mbégte la doon dàkk. ah na sama xol de. nee na nga xolam. defe naa bég naa. nee na bég na. li ma tuddee sama waajur bu góor doom. ndeysaan doom ji miñ ko tuddee way bu góor bég na. Pape Sylla ñëw defaat lu mel nii. Pape Sylla ñëw defaat lii. dama ko mës a fàtte ci àdduna. du a fàtte mukk yàlla la yàlla fay. yàlla na la yàlla fay. yal na la yàlla bàyyeek ñi nga xam ne ñoom nga àndal tey. ndeysaan ndeysaan sama xol sedd na trop. ndeysaan. li ma ma gënal ay milliards. ndeysaan barki yonent yàlla ma xam. ndeysaan. ndax jëmm ji. nee na ji ah. ndeysaan ku ko xamul de xam naa ko. waa nag waaye nag lépp nag sama rakk la. muy Mathia Pereira. Mathia yàqu ci dara. yàqu maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla guddal fanam. Mathieu nee na mi ngi lay ñaanal yàlla guddal soo fan. di sant sama xarit sama doomu ndey. sant xaritam doomu ndeyam. fils de Balla. fils de Balla. ndeysaan. Euh, gis nga fils de Balla mii. nee fils de Balla mii. su ma ko sant dama ko war a sant. nee na bu ko santee da ko war a sant. ndaxte mënoon na bàyyi yitteem yëpp. ndax nee na mënoon nga bàyyi yitteem yëpp. dem lijjanti leneen. mu bàyyi lépp ñëw ba fii. nee na nga bàyyi lépp ñëw fii ci tuddam nii. kon fils de Balla kenn amul fayam. nee na fils de Balla kon nag nee na amut sax fay. barki Serigne Babacar Sy du ma gën a doon gor. nee na a doon gor de. te li ma tax ma wax ko loolu moom xam na ko. nee na li tax mu wax loolu. moom xam na. moo ma ko ji. nee na ko ji. te barki sëriñ Babacar Sy. te barki Serigne Babacar Sy. yal na ko yàlla bàyyeeg waajuram yi. nee na na la yàlla bàyyeeg sa waajur yi. maa ngi koy sant di ko gërëm. baax nee na mi ngi lay sant mi ngi sama xarit. Orca nee na mi ngi tamit. ah beneen affaire la. beneen affaire la. mention spéciale ci Orca. guddi bëccëg. nee mu ne ko carte téléphone na ko. ñëw ne na ko kaa mi yónni soxna si mu bàyyi itam. ñëw ko bu dee ñëw yónni soxna si mu bàyyi te xoolul dara. maa ngi sant sam papa góor a kees. mi ngi sant papaam góor a kees anam. mu ngi kees ak noonu. baax muy nit ku baax. muy nit ku baax maa ngi koy sant di ko gërëm. góor a ñu ngi lay sant. bàyyi it jóge kees. nee na jóge nga kees. bàyyi itam yëpp. bàyyi say yitte. billaahi wallaahi taala kii. kees. taalibe sëñ Babacar si dëgg ngi nii. taalibe sëñ Babacar si. taalibe sëñ Mansour si dëgg ngi nii. taalibe sëñ Mansour si borom naa ku fonk ay waajuram. yal na yàlla guddal fanam. yal na yàlla guddal soo fan. yal na ko yàlla bàyyi ak soxnaam. na ko yàlla bàyyi ko ak njaboot yi. maa ngi leen sant di leen gërëm bu di sant waa Écurie Waalo. maa ngi sant waa Ikri mu mi ngi sant waa Ikri ci kaw ba ci suuf. ci kaw ba ci suuf. waa Ikri maa ngi leen di sant di leen gërëm. waa ngi leen di sant di lépp sama loxo papa Ali. di ñaanal loxo papam Ali. yal na ko yàlla may wér may ko eh, gudd fan. papa Ali na yàlla guddal sa fan. ci barke Seydina Mohamed ah ci barke Seydina Mohamed. mention spéciale liiru. mention à spéciale à grand liiru Diane. waaw grand liiru moom. kenn waroo ko woowee jaan bi sax. nee na kenn waroo ko nañ ko tafal monument de la renaissance. nañ ko tafal monument de renaissance xaw ma nan ko loolu. renaissance monument daal ko waxee baax na waaw mais noonu baax na. waaw monument de la renaissance. sant di la gërëm. sama xol sedd rek. dégg na xam Lamine lii lu ko dàq. ah Lamine. naa la ko ndeysaan. Lamine sama xol sedd Lamine li ko laax. Moustapha ngi noonu nuyoo Seck na. ndeysaan Mbaye googu ku bëgg Serigne Mountakha ngi nii. ah jooy na nga gudd fa boo bëggee mbir tuddul Serigne. barke ma doon jéem a jaxase la dëgër yàlla na yàlla yàlla ma yàlla àtteeg ñoom. yàlla ma yàlla àtteeg ñoom. yàlla ma yàlla àtteeg ñoom lan sama rakk la sama frère. vrai comédien wax ji dafa ñaaw. vrai comédien barke Sëriñ Saliou Mbacké la billaahi wallaahi yàlla na yàlla suturaal man ñoom ñoom samay rakk lan ñii doon ñëw ci la dëggee di ko wax yu ñaaw yi lii rek tey war naa taxul ñu rus xanaa ngeen tëj seen làmmiñ di wax. sa verre yi dafa rafet xanaa sa la nen ah, ah. nan bàyyi wax ci nan bàyyi wax ci sew àdduna amul solo fii dafa gis damay jeex lan sama rakk la man ñoom ñëpp samay rakk lan billaahi wallaahi taalaay barke rasuuli la ki yaa kii dem ci la doon foog nga wax yàlla. waaw li waay. Macha baaxul de. pour laa laa billaahi wallaahi tallaahi aduna amul solo fii loofu gis dafay jeex gis nga lii dafa rafet ah. man su ma teewee teewal naa ñëpp te corona bi moo tax rek si fiit moo waral mu doxalee nii voilà day tur rek mu jeex yàlla na ne yàlla suturaal te mosuñu cataat làmmiñ man yéen ma kenn lu bon wax dëgg sama rakk lan man ñun ñëpp samay rakk man may borom géej waay loolu yàllaa ko def samay rakk na rafet rek aduna amul solo yéenewuñ kenn lu bon soq yi nga xamee nag ku fi nekk daan da ngay jéem a jaxase yàlla boo ko fekkee yàlla boo fekke dara dem fii wax dem fee wax di jaxase ñoom demuñu di ku koy def yàlla boo fekkee dara te lat li mu def nii daf na refet ndax euh, doomam ji. su doon jigéen la. rythme bi changé leer na yaayam la koy tuddee. rythme bi changé jigéen la leer na waaye mu nekk góor mu tuddee ko papaam dërëm bi génnul gaal gi. dara ci rythme bi nga nekk. non non non dafa naan dama lay wax a affaire laa lay xamal. ñun ñaanal yaayam yàlla ko yàlla a àjjana. lii daal moo wax dëgg su sunu xol seet nu guy ñun ñëpp yàlla nañu yàlla jàppale Lamine jërëjëf. léegi la ma bëgg xam mooy. koo mu ko jaglee Lac de Guiers ki nga doyloo moo di Serigne Babacar Sy baayu Serigne man baayu Serigne Mansour mi ni njoyto noppee gunu baayu Cheikh di Ndiane Sy Al Maktoum sa waa jaagi xalifa yi lamp ngor loo bañ bañ mu tiim la tey leeral lii la yàlla def ku sopp Serigne Babacar Sy ne li ñu màggal joojol waay ewaay joo yar joo ne yaag joomi nan laay aw nan xay ramotasim waay arjo arjo ay arjo min allahi aw nan xay